mbokk jullit yi mbokk talibe yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké Khadimu Rasoul Serigne Moustapha Mbacké Abdoul Khadir jëwriñu Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Khadir Serigne Sidi Mbacké Abdoul Khadir président comité d'organisation Magal annuel Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadir Mbacké Khadimu Rasoul ñoo am mbégte di fàttali di yëgle ak di woote magalug Serigne Abdoul Khadir Mbacké Khadimu Rasoul gi ñuy at mu nekk ren ñu di ko amal talaata fan ñeenti fan ci weeru juillet 2024 muy bésub sant bésub màggal imaamu imaam yi quatrième xalif général des mourides Serigne Touba Serigne Abdoul Khadr Mbacké ren programme bi nii lay tëddee jotaayu waajal maggal gi ñu ngi koy tàmbali benn fan ci weeru juillet 2024 li ko dalee 17 heures jagleel ko waa muux muux muy amee corniche bu beleel ci njiital Baye Mor Fall ñaareelu jotaayu waajal maggal gi ñu di ko amal ñetti fan ci weeru juillet 2024 li ko dalee 17 heures ci 30 bi ci yoonu Baqiya wetu Bassirou Mbacke jagleel ko jabootug Serigne Mbacke Kanni Bousso ci njiital Serigne Modou Mamoun Bousso xalifa Serigne Mbacke Kanni ñetteelu jotaayu waajal màggal gi ñu koy amal juróomi fan ci weeru juillet 2024 li ko dalee 17 heures ci kër Serigne Abdoul Wahab Mbacke moom Serigne Abdoul Khadr Mbacke ci Touba Guédé conférence su sët yi dinañu ko amal juróom-ñaari fan ci weeru juillet 2024 li ko dalee 20 heures 30 ci kër Serigne Abdoul Khadr Mbacke Touba ak jumaa ji thème bi ren la purification de l'âme et sur l'individu individu et la société conférencier ba Serigne Ahmadou Mbacké Darou Mouhty le 9 juillet juróom ñeenti fan ci weeru juillet 2024 di bisu màggal gi bu nu xëyee 8 heures ba 14 heures njàngum alxuraan njàngum xasida ak ziar heures ba 16 heures bernde yi heures 20 heures ñu wéyal njàngum alxuraan mi njàngum xasida mi ak ziar yi minuit ba bët set njàngum xasida ak Serigne Khadim Gueye bés bangoog programme bangoog ñu di ko yëgal njabootug Sëñ njiitu réew mi mbooleem gouvernement bi mbooleem autorité yu région de Diourbel rawatina autorité yu département bu Mbacké rawatina commune bu Touba mbake ñu di ci soññ fédération ak daayira yi aju ci kër gi rawatina daayira turandoo sëriñ bi ak mboolem ñi ñu wëllaranteeg borom bés bi imaamu imaam yi quatrième xalif général des mourides sëriñ Touba sëriñ Abdoul Khadir Mbacké Khadimu Rasul yal na nu ko yàlla fayal te yokki leeram asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu